benn benn réew mënul développer te amoo ay ingénieur loolu loolu moom il faut que nit ñi xam ko ñun loolu xam nañ ko et puis luy tubaab di wax donc ODD maanaam dafa am yoo xam ne ni mënul ñàkk ci réew te loolu mënul ñàkk ci réew ingénieurs yi ñoom ñoo ko mën a régler et ñun loolu lañu comprendre moom moo tax ñu ne euh, léegi il faut que xale yi ñuy tàbb ñu fexe ba nga xam ne ni loolu ñu béy si seen làcc ba nga xam ne ni te bu ñuy wax ODD tamit population bi moom moo tax c'est-à-dire tey nit ñi am problème bu ñu lu ñuy jàkko jàmponteel ci ndox wala assenisement wala énergie wala lu lu ni mel yooyu yëpp mën saafara te loolu ingénieurs yi ñoom ñoo koy faj loolu moom moo tax xale yi tamit dañ leen ñaax pour que tamit bu ñu génnee ñu xam ne ni loolu moom moo leen di xaar du leneen ndax mbiru il ñu mën a régler mbiru sénégalais yi moom moo tax aussi ñun tamit lu ñu mën def pour gën leen former nga xam ne nii lu ñuy wax dinañu mën a dugg civil seen vie professionnelle euh, attaquer tous les problèmes yi nga xam ne nii c'est à leur portée dinañ ko def incha allah. lenn la ñu soxla bu ñu amee am na benn am na ay salle de classe yu ñuy tabax ay ay am na salle de classe yoo xam ne nii. soxla nañu à peu près deux grandes salles de deux cent place wala trois cent places bu ñu ko amee dina baax mais loolu bu wees am nañu benn bâtiment fii boo xam ne nii mille lii la bâtiment bi bu paree octobre incha allah octobre ñu jël euh, ñe ñaar ñeent fukk. ñaar téeméeri dinañ jël ñaar téeméeri ndongo. yi nga xam ne ñu ñoo am bachelier pour ñu tàggat leen pour ñu nekk ay ingénieur bu neexee yàlla waaw waaw fi CTI bi daf koy findeel waaye loolu nit ki doo daagu doo ci naagu parce que loolu da il faut nga xam ne nii boo ko amee tamit da nga war a fexe ba mu bañ a rëcc sa loxo moom moo tax olof yi li ñuy wax ni ay euh, euh, ku ku naagu daagu te ku daagu ñu raw la loolu nag dinañu fexe ñun ba loolu du ñu daal incha allah. yëg bu mag a mag laa am vraiment bi mu ñëwee tey doon naa fi ñëw bi ma ñëwee tey kontaan naa trop ci école bi parce que loo gis rek ñi ko yore moo important buñ ko yore woon yore yu baax kon école bi ba fi ñëwee tey da ngay tig école bi demoon na ba commencé fissuré yëpp parce que sol bi baaxul commencé fissuré mais gis naa ne góorgóor nañ bu baax ah voirie yi def nañ ko def nañ bâtiment yi ñu ngi renforcer et économie matière première amatul ma déggee ñu naan Sénégal am na pétrole am na gaz am na truc damay wax ni les gens sont dépassés parce que maintenant c' est l' de la connaissance ah et de la technologie pays yi nga xam ne connaissance ak technologie day am amuñu benn matier première mu mel ni Japon c' est les ce les majors en économie de ce monde benn société bu ndaw rek en en connaissance et technologie moo ëpp PIB moo ëpp PIB Arabie Saoudite pour ne pas dire le Sénégal donc vraiment donc te loolu la koy joxe mooy formation technologie ak connaissance c'est la formation moo tax vraiment ñi ngi ñaan les nouvelles autorités nga xam ne dañuy ñëw pour développer Sénégal ñu investir ci école bi former le maximum de cadre ah maximum de la connaissance en ingénierie parce que ñii les génies en ingénierie ñoom ñoo mën a war a développer Sénégal et da nga koy tàggat. lal bala nga faa tëdd da nga koy lal ñu lal ko bu baax moo tax ñu war a jàppale école bi maa ngi woo aussi élèves yëpp ak enseignants yi parce que mille ingénieurs dans le ñu nga xam ne plus de mille yu ñu formé yi nga xam c'est des donneurs d'ordre principal dans beaucoup de facteurs war nañu ñëw jàppale école bi ba classe ñu soxla ñu am ko euh, encadrement bi ñu soxla ñu am ko surtout les plateaux technique pour que vraiment école bi fi génn muy école de référence ñu mën a développer le Sénégal parce que par la formation simplement qu'on veut développer le Sénégal les matières premières là am naa pétrole am naa gaz am na mosul développer benn dëkk c'est la connaissance et la technologie qui développe les pays. et loolu loolu rek lañ ko mën a amee fii ci fii ci école bi parrain bi nag dañ koy gërëm parce que parrain bi ñu koy choisir dañuy xool exemple c'est un homme généreux c'est un homme bi nga xam ni il a donné toute au Sénégal. feu Ibrahima Ndiaye parce que def na def na plus de quinze ans à la à bi mu fa jógee mu def vingt ans à à à l'AGEROUTE donc vraiment trente cinq ans yëpp ci vie am def ko teg ci liggéey dafa retraité rek décédé donc vraiment nga xam ni vraiment li mu defal Sénégal mënoo fi gis benn benn investissement bu nga xam ne tegu ci loxoom et tout ça. et puis def ko avec tact def ko avec générosité def ko avec tic ñeen bi mu décédé lañ doog a gis photo toujours da doon jiital nit ñi nga xam ne ñoo nekk ci projet di leen jiital les jeunes ingénieurs di leen confronter à la réalité des choses mu doon kenn ko expérimenté kenn ku def liggéey bu mag boo xam ne vraiment bu ñu ko magnifié tey ñun ñii génn ci école bi ñu ñëpp dañuy kontaan.